وصفيه وحبيبه وخليله من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونظيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه أما بعد فإن حق الوالدين عظيم ومنزلتهما عالية في الدين فبرهما خرين بالتوحيد وشكرهما مقرون بشكر الله عز وجل والإحسان إليهما من أجل الأعمال وأحبها إلى كبير المتعالي مبكو يني سيطان دي سيطان سين إميسان بني تودي خمسة دينة كي سين سيت انترنت بني تودي الفيزيون ميجا مو خم تي بيتيم ريومي ولا تي بير ريومي ñu ngi leen di ziyaara tabaarakallaahu di leen massawu coona di am mbégte ak contentement delsiwaat ànd ak yéen ci seen émission bi ñu tuddee xam sa diine e tabaarakallaahu ñu nuyu suñu caméraman bu tedd bii di El di ñaan yàlla itam ci mbaaxam yàlla defal ko tawféex defal ko sutura ba sit bi mujj nekk tele bu mag a mag a mag ci kàttanu yàlla ak mbaaxam mu mel ni suñu waxtaanu tey dafay dellu ci yàlla sant gi mu sant doomu rafetal jëm ci ñaari way juram gis nga pour wax la yàlla ni mu fonkee ñaari wayjur parce que boo demee ci alquran sunu boroom ñaara aaya bu mu tudd rekk bu ca daanalee ñaari wayjur la cay teg mu doon loo xam ne xaq bi ñu leen jox ñoom ñaari wayjur ci diine dafa nekk xaq bu nga xam ne bu màgg la ci sunu borom wàcc waay bi ñu leen wàcc ci diine itam dafa nekk lu nga xam ne lu kawe ci sunu boroom la baax gi ngay leen di baaxe dañu ko lënkalanteeg ak tawxiid bi ngay def ak sunu boroom sant gi ngay sant sa ñaari way waajur itam dañ ko lënkalanteeg ak sant bi ngay sant sunu boroom rafetal gi ngay rafetal jëme ci sa ñaari waajur dafa nekk ci jëf yu gën a màgg ci sunu borom te moom la yàlla gën a bëgg li koy firndeel mooy boo demee ci alquran borom bi mu ngi wax ne waabudullaha wala tushriku bihi shay'a lum ca teg wa bil walidayni ihsana sunu borom nee na man mi la sàkk ba dara dul dara yore la sa dund yoreel la sa koddaay yoreel la itam soo feebaree la lay faj suñu borom nee na nag ma jaamu man dong bul ma bokkaale ak kenn parce que mi ngi mel ni elxaaj bi yor njabootam di ko dundal su feebaree mu faj su tawatee mu yóbbu hôpital mu xëy xëy doom ji bëgg ko teg palaasu beneen way jur bu bokk teg hélas mais hélas du ko nangu sunu borom nee na man mi la sàkk nag jaamu ma te bul ma bokkaaleeg dara waaye nee na gannaaw boo ca paree nag maa ngi lay sant na nga rafetal jëme ci sa ñaari way jur waaw na nga rafetal jëme ci sa ñaari way jur e eh, mën nga ko defee nag façon bu mu mën a doon mu xam nga seral seen xol nga am may len nga di len ñaanal di len topato ci façon bu mu meuna a e bo demé ci benen ay itam sunu borom pour wax la ni mu fonke wayjur da fay wax ne wa khada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu mu tegaat ci wabil walidayni ihsana sunu borom nee man ma àtte dogal pour ngeen jamuma ah ay waaye itam boo ca na nga rafetal jëme ci say ñaari wayjur mu teg ca wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma waxul lahuma kawlan xawlan karima mooy comme ni ko xale yi di faral defee mbas paa bi dafa soof walaay ndeysaan wala mama dangay waaru yàlla nee na loolu bu ko wax sa ñaari wayjur wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma te itam nee na bu leen gëdd di leen gëdd way maa ngi ñëw ah maa ngi ñëw xaaral borom bi nee na santuma la loolu wala taqul lahuma uffin wala tanharuma nga ne ko kon nu may def mu ne waxul lahuma xawlan karima del wax ak ñoom wax ju tedd waaw wax fid lahuma janaaxa dulli min arrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayaani sagira nee na bul di aj say mbagg mel ni kuy bëgg a naaw booy wax ak ñoom na nga toroxlu wàcc ci seen kanam waaw itam na nga leen di ñaanal naan yàlla yow mi ma sàkk maa ngi laa ñaan sama wayjur yi nga xam ne ñoo ma njaboote daan sonn ci man guddi ak bëccëg may sanguwaay ci seen kaw ñu koy muñ may dem toilette ci seen kaw ñu koy muñ may yàq seen nelawi bëccëg ñu koy muñ ma di leen def loolu ne ñu koy muñ kon yàlla yow momu kat ma ngi la ñaan yàlla na nga leen yërëm comme niñ ma doon yërëmee bi ma nekkee xale ah warhamhuma kama rabbayani saghira e summa innal ahaditha fi hadha as alsiyaq kathiratun jiddan minha ma rawa ibnu mas'ud radiyallahu anhu qala سألت الرسول الله صلى الله عليه وسلم أي عمل أحب إلى الله قال الصلاة في وقتها ثم أي قال بر الوالدين ثم أي قال الجهاد في سبيل الله dafa بن حديث بغا خمنا ابن مسعود ne نتالي Mas'ud moo ko nettali sallallahu alayhi ne ko ban mbir la sunu boroom gëna bëgg nee yonent bi ne ko mooy nga julli ca waxtu wa bu fekkente ne amuloo ngànt waaw ah. mu ne ko ak ban nee yonent bi ne ko ak ngay baaxe sa ñaari wayjur di def lu rafet jëme ci ñoom ibnu mas'ud ne ko ak ban mu ne ko ak ngay jihad ci yoonu yalla moy ngay xex ngir yalla rek tax wa ngay xex ngir yalla rek tax motax gis nga pour wax la yalla ni mu fonke wayjur dem na ba ci nit ki nga xamne wayjuram dafa genn adina mu jog sol dalam. di jokk wëllëre baayam fu wëllëre baayam nekk mu dem fa bu amee kilo suukaram jox la bu amee pakatu wargaam jox la bu amee mil francs jox la nee na loolu ku koy def bu yowmal xiyaamee sax dañu li cay bindal tiyaaba pour wax la way jur ni mu foore sa way jur dëddu na waaye ki nga xam ne wëllëreem la te nekkoon fi jokk gi ngay jokk kóllëre gi doxoon sa diggante sa way jur ak moom yàlla nee na dañ la ciy bindal tiyaaba waaw inna saxsa yusaabu bi ziyaarati man kaana al waalidu yawadduhum waaw képp koo xam ne sa wayjur wëllëreem la woon nga di ko jokk ñu ngi la cay bindal tiyaaba gis nga garaat boobu ginnaaw yonente bi way jur rek la ko yàlla takkal way jur rek la ko yàlla takkal pour wax la jur ni mu foore moo tax dañu wax ne baaxe gi nga leen di baaxe jamono bu ñu nekkee mag néew kàttan lañu manoon mënatuñu ko nga di leen sonnal guddi ak bëccëg léeg mu soxla ndox nga may ko mu naan léeg mu soxla dem ci wanag bi nga dimbale ko léeg mu soxla doxantu nga jàppale ko mu jóg léeg mu soxla euh, tàllal yaramam nga dimbale ko nee na yooyu ngay def ak sa wayjur sabab la bu nga xam ne daf lay yóbbu aljanna parce que loo gis lu ne rek am na sabab mu ngi mel ni elhaj bi site bi mu ubbi di liggéey sabab la pour mu am télévision ki nga xamne da fay dem di sàcc mu ngi sabab lu ko yobbu kasso han ki nga xamne da fa dem di agresser mu ngi sabab lu ko ray ki dem di def lenenak ak lenen, ak lenen lolou muy def mokay sabab parce que ki dem di jaamu yalla mu ngi def lu ko yobbu aljanna motax mu ne sonu bi ngay sonnal sa ñaari wayjur di len dawal safa ak marwa lolu moy sabab bi tax nga cay jaaree dugg aljanna te bu yowmal xiyaamee itam moy sa texe motax tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam dafa wax ne ku sagane sa ñaari wayjur xamal ne perte nga perte bu nga xamne ne xamatuloo foo ko mën te gis nga yàlla limi am am may li muy nekk nekk buuru nit ñi nee na nag bu la sa wayjur gërëmee man yàlla ànd na ak yow waaye bu la sa jur meree itam man yàlla ànduma ak yow moo tax dañ ciy nettali benn góor bu nga xam ne dafa jàppoon juram di ko dóor di ko dóor di ko dóor ba lolou doyit mu kay ñoddi di wat ah naka la ko ñoddi ñoddi ñoddi ba famu ko neex mu tek ko fa waye gis nga li arab kama tu dinu tudan wolof dafa wax ne ku ñu fay sa bor nga mer da fek la nga lebloon mo baxul ah ay itam ku ñu fay sa bor nga bek dafa fek na la nga mo baxul ndaysan e naka la def noonu way juram moom itam yàlla dogal mu am doom bi mu amee doom yitam mu am bis doom ji jàpp ko moom tamit di ko dóor di ko dóor di ko dóor ba mu bëgg dee waaye doyit mu di ko wat di ko wat di ko wat ba yegg ci fa mu tegoon maamam mu ne ko doom mu ne ko labbayk mu ne ko fii laa yemale woon sa maam yemale ma fii wallaay ndeysaan yamale ma fii pour wax la la mu defoon ci way juram la ko doomam fay loolu la ko doomam fay ba tax yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne ridallah fi ridal walidayn wa suqtuhu fi gis nga yonent bi nee na su la sa ñaari way jur xoolee ba bëgg ci yow kontaan ci yow wax la ne la yow El gërëm naa la yàlla nee na man itam ànd naa ak sa jur ci ngërëm gim la gërëm waaye doyu ci de yonent bi sallallahu alayhi wa ne man itam ànd naa ci ngërëm gi la sa wayjur gërëm saxaaba yi ñoom itam taxaw ne ñun itam ànd nañ ci ngërëm gi la sa yàlla gi la gi la sa wayjur gërëm malaaka yi ñoom itam wax loolu waaw ku sunu borom gërëm yonent bi gërëm la ma malaaka yi gërëm la saxaaba yi gërëm la moo lu fa desati loolu mooy sa aljanna leer na kooku loolu rekk la waaye itam noonu la amee au contraire gis nga looy wax ba sa way jur jéppi la mere la ñaanal la sunu boroom ne yàlla yàl na ko alak yàlla nee na la mu def lay wax ànd naag moom ci mer ma yonente bi ne comme man yàlla ànd na ci man itam ànd naa ci malaaka yi wax loolu saxaaba yi wax loolu ñépp jéppi la te itam booy xool yow mën a dégg ndax Sénégal léegi ñaata nit nga fi gis ñii ngay sàcc ñii ngay dugg fii ñii ngay toro mais lu leen ko yóbbee ñàkk am ngërëmal way jur la parce que gis nga am na lu nga xam ne boo ko amee bunt boo fëgg mu ubbeeku moo tax dañ ciy nettali benn waay dafa àndoon ak ay moroomam ñuy bay bu ñu bayee ba pare rekk ñiy jël lañu am yut sëriñ ba mom mu jël la mu am yut bayam, dikodef, dikodef, def diko def diko def ba bis bayam ne ko dom mu ne ko labbayk ne ko sama xol sedd na ci yow geureum na la ba fu geureum yam teral nga ma guddii teral nga ma beccëk yal na la yalla teral te yalla bo ñe sa benn morom waye na ko baay bi waxe won nun la amé parce que yalla du delo ñaanu wayjur yalla du ko delo mukk mu tax boo amee seen ngërëm bunt boo fëgg mu ubbeeku bunt boo fëgg mu ubbeeku yàlla xam na ko loolay tax yonente bi dafa wax ne bàkkaar bu ci nekk yàlla mën na ko téye ba yow mal xiyaam mu fayal ko boppam waye nee gis nga bakkar bi nga am ak sa ñaari wayjur automatiquement la ko yalla di àtte ngay gis wa motax benn goor ndaysan bokk ci bindukatu Sénégal yi di borom xam-xam di kilifa itam e cër bu doomu soxna am am nako. dafa bind benn way di ko dénk doom ak way juram di wax ne farlul ci say ñaari way seen ngërëm te moytu te yaakaar yow seen ci say ñaari way jur sàkku seen ngërëm te moytu seen mer te yaakaar yow ci seen ñaan bu nimbasa, ni mbassa bu len geddit sa wax na di noy ta ngay toroxlu tay def la yalla santane so magalul ñala jur bu dom ju bon di la fay sa xol di gañ gañ ngay ñaxto ka ñeetaane so de teral ñala jur kon so tele da nga gis sa dom ju bax di la fay sa xol di kontane ah tabarakallah mu melni li ñu mayen ci waxtu jeexna euh ni ñu ko waxe won rek tabarakallah ni ñu ñi seetaan ñep bo xam ci rew mi wala ci bitim rew ku ci nek fa ga tok rek jox nañ la suñu loxo xol nuyu la ci bat bi ñu yalla boole di ñaan li bat bi lambo yep yalla nañu ko yalla def inshallah allah ni wat sama cameraman bi El hajlo ak itam soxna su tedd se tabarakallahu di suñu soxna di suñu lepp yi ñaan yàlla defal leen tawféex ah kon xam naa ñu ngi leen di jox dig daje alxamis bii di dellu si ci waxtu wi ci seen émission xam sa diine ngeen ànd ceeg seen site internet El Vision Média bu ko defee rek ah kon ñu tëj rek bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bnayhum shibtayni aclaami lhuda wa bi saxbihi wa taabiina lahum fahum صاداتنا أهل المكارم والندى فرج سقام العبد واكسف كربه يا خير من مدى العزات له اليدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته